Mankonomba la pays de l'histoire mankono le fondateur c'est Fodekar Gagu c'est Fodekar qui a créé Mankonomba bon et, mais quand il venait là son premier qui la première descente qu'il avait fait c'était l'autre la Maltouré Maltouré c'est une brousse après, c'est pas loin du fleuve, quoi. Il était là-bas. Voilà, bras du fleuve, quoi. Il était là-bas. Et il paraît que le serpent mordait ses enfants. Il avait même perdu ses enfants. Après ça, après il, a, il a rencontré. Il y a d'autres qui disent que c'est un diable. man ko no ba nag si soose moom moo di naa fi toog que sama maam ki wax loolu moom moo di Fodékar Diadhiou Fodékar Diadhiou nag bu mu ñëwee dafa doon wër ki xamante ne moom moo di maamam comme gisu ko nag fu mu dem di laaj ci ndaa sama maam romb fi ñu ne ko déedéet wala romb na topp ko ci lii topp ko ci lii topp ko ci lii noonu la ko toppee ba gisu ko mu daal toog foo xamante ni moom moo di à luwees di village benn bërëb bu ñu tudd Matouré foofu bord di fleuve la bras du fleuve moom moo fa nekk waaye nag bu mu fa toogee mu daal di am ay jafe-jafe jafe yooyu nag mooy saaye bu amee ay doom li jafe-jafe bu mu am gën a am moom moo di problème jaan dina daal di am loo xamante ni moom moo di jaan yi dina daal di mat ay doomam ba ñuy dellu ci loolu nag mu am benn misaal misaal boobu nag ñu ngi koy jox loo xamante ni moom mën nañ la jox benn garab garab boo xamante ni yow di nga si mucc waaye nag à l'échange de ton esclave sa esclave boobu nag esclave boobu noonu mu ngi tudd mansañima mansañima boobu nag boobu la joxe ñu daal ko jox misaal boobu misaal boobu mu nekk garab bu yéeme ci village bi garab boobu noonu ñi sant saaña ñoom ñoo ko am dafa daje ak benn benn jinne quoi mu jox ko benn eh, secret misaal secret mooy euh, secret boo xamante ne day rey mais le secret bi dafa ko changé ak benn esclave am quoi esclave am tuuram c' est Mansagnima Mansagnima ak eh, esclave am ko ak quoi bi mu eh, jusqu'à l'insomption du soleil toi tu es prévenant n'auront pas de problème de serpent jusqu'à présent et eh, le médicament là on le cherchait chaque sept ans chaque sept ans lañ koy wuti waaye nag saay boo jaan rombee boo ko tuuree si kaw jaan bii rek jaan bi day daal di matti boppam ba mu dee yow nit ki boo jëlee poudre boobu nga daal koo seex tuuti yow année boobu noonu mucc nga ci euh, loo xamante ni moom moo di ay matu jaan léegi nag loolu lañ ko jox comme xamante ni moom moo di protection Fodekar et dafa nekkoon euh, Mantouré mu jógee Mantouré ñëw fii Bantagniema Bantagniema derrière Dabokunda foofu la nekkoon quoi mais moom il n'est pas entré dans le village il n'est pas entré dans la clôture là mais moom dafa desoon fale quoi ki Mantouré foofu la gaañu quoi parce que dégg naa sëriñam foofu la nekkoon quoi sëriñam waa Wudukaar la quoi et aussi la c'est la ko jàngale alquran moo moko n'est-ce pas les là, Ouroukar m'a créé avant Mankonomba m'a créé avant Mankonomba mais le vieux il faisait la navette entre et Mankono mais il avait une fois confié le secret à ces gens-là les deux villages là et le village qui m'enterre ce dernier village là sera plus peuplé sera plus puissant que l'autre mais par d'appelledit Fodé-Car dafa ñëw seet si Fodé-Car eh, si la dafa jóge wutukaar mu ñëw seet si Fodé-Car foofu la maladie attaqué ko bon yàlla dogal na ko dafa faatu ko mais Fodé-Car dafa muus parce que moom bàyyi na xelam wax kilifa bi quoi oustazam quoi moo faatu mu suul ko balaa waa wutukaar yeggoo quoi après mu yoon leen foofu ah sëñ bi vraiment yàlla dogal na ko dafa faatu fii mais denc naa ko fii donc moom Fodékar Diadiou bu mu ñëwee nag ñu ko ñi nekkoon ay njaatigéem mooy ki ñu wax Silla Ba te mu nekk Wudukaar Wudukaar bu nekk actuellement chef lieu de commune parce que foofu mu nekk commune bi kooku moo ko tuubal mu dugg si l'islam ba mu ñëwee seet si ko benn jamono mu daal di siburu ba mu daal di ñàkk bakkanam moom mu daal di profité suul ko foo xamante ni moom moo di fu fu mu nekk waaye nag ba mu ko suul mu daal di yóbbante waa dëkk ba mu ne leen ah sëriñ bi de yàlla mi na ko waaye nag dénki naa ko ñu ne ko ku la ko sant ma leen yéen ne yàlla mu nga fépp yéen ma ko jàngal lool moo tax ba mu yàlla bu mu ko moomee man daal di koo suul fii te fekk na wal kooku waliwu la dafa leen ne fu xamante ni foofu foofu la ñu may suul dëkk boobu noonu moo nar a gën a rëy ci pakkaaw bi léegi gars bi ne ko a ah, yow kan moo la jox autorisation boobu nga denki suñu papa nag non yeneen ma jàngale yeneen yàlla fépp la nekk nest yaakaar naa sama fii tamit yàlla mu ngi fii. donc doomam yëpp comme ñoom ñëpp dañu daal di nekk ay borom xam-xam ñoo xamante ni maîtriser nañ alquran ñu leen di woowee Kamburasa Kamburan Demba Kawsubi Kamforan yi et cetera doomam yëpp lañ tuddee noonu. koñ bu ñu nekk nii nag fii mooy Kamburaan dem ba moom moo di boo jógee Kolda nag fi ngeen njëkk a commencé te moom bu muy jóg doog a ñëw zone boobu la commencé mais à l'ouest aux alentours de la euh, foo xamante ni moom moo di le bras du fleuve. Kamburasa c'est ici la première maison Kamburasa après Kamburasa Kamburamane la maison qui est à côté là voilà après Kamburamane il faut compter deux hein j'ai cité deux. Après Kambouramane, Mané, il y a Kambura Kausubi, c'est derrière la, mosquée. Après Kausubi, il y a Kantumane. Kantumane, c'est de l'autre côté. Après Kantumane, il y a Kambura Combien 5. Kambura Ndemba, Kamfora. Voilà ses, ses fils. Et puis, le vieux, c'était ton savant. Parce que quand il venait là, il était venu avec son neveu. Son neveu s'appelle Kumbit.

bëgg nañ leen koo def waaye nag dañoo ñëw rek <laughs> ñu daal di ñu ñu ne buñ fa musa a teg suñu tànk bu daal di koy filmer ba daal di koy wone nit ñi di fa mab dem foofu bu ma laajee lan mooy jafe-jafe loolu dañoo ne fin àdduna bi day nekk day daal di nekk ay xeex ak fayantoo fayantoo boobu nag moom moo di mën naa xool diw ma bañ ko ma daal di foo dem di fa ñaan pour lu bon di ko dal te moom nee na ñoom ñaan ñëpp bu ñu ne nekk di dund dañoo ne képp koo xamante ni sa ñaan du nangu yàlla bul egsi si ñoom nag bu boobaa ñoom nit ñi comme nit ñi dañuy liggéeyante di yéenante lu bon bëgguñu ni ñu di dem fa ku nekk du ñaan lu bon si sa morom lii mooy secret boo xamante ni ñoom loolu moo tax duñu fa dem waaye nag ñi xamante ni ñoom ñoo di les saañante ñu leen di wax les kóoriñ ci village bi te ñoom ñoo les eh, les chefs de village ñoom ñooy yor euh, voilà chef de village ñoom bu ñu fay dem sa d'ailleurs guddi lañ fay dem guddi tam bu ñu fay dem dañuy sol yére bu weex yere bu ñuul kuk la ñuy sol même bu fekkee ne dañ koy tet ak ay nit wala dañ fay dem butal ñaan comme ñu fay jóge am na ay kilifa yu bëri fan yi nag ñu ngi fiy jaabante avant gamu bi surtout après l'échec du gouvernement ñu bëri ñëw nañ mais bu fekkee dañ leen yóbbu tamit tout nuwaar ngay def les fils de les fils de ils sont toujours puissants ils sont toujours puissants dans le village là personne ne peut le contrôler et puis le puits là aussi c'est un de ses fils qui a créé ce puits là parce que c'est lui qui a fondé la mosquée là la mosquée là c'est une mosquée qui n'a même pas fait dix ans l'autre mosquée l'ancienne mosquée l'ancienne mosquée et donc qui moko moko moko moko moo moo ko tabaxoon ci village bi 100% musulman musulmans une seule mosquée un seul endroit ñi xamanteni fu ñu nar a ay ñaan ni ngi koy défé nak moom moo di comme li ngay wuti ñaan kii pour les pakaw parce que fi moy fondement du pakaw bo ñëwé pour wuti ñaan da ngay daal di commencer comme boo jógee Dakar nga war a ñëw man euh, la prière du Pakao parce que c'est superposé de façon triangulaire équitable da ngay daal di ñëw bu dee da ngay Dakar de préférence doo jaaree par Gambie de préférence aussi doo jóge par le Momodi aspect côté Ziguinchor comme ñu jël avion di dem de di ko duggee noonu di ngay jaaree foo xamante ni par Tamba bu fekkente ni amoo avion nga mën a jël da ngay jël avion doo wàccee Sédhiou da ngay dem wàcce directement foo xamante ni moom moo di Kolda nga duggee ko nii nga génnee ko mais doo ko duggee loolu boo ko defee nag te doo kenn du ko def deux fois dans l'année une seule fois dans ne am na ñoo xamante ni nag gars yi bon mun nañ ne non comme def naa ko nii def naa ko lii eh, mais ce qui est recommandé une seule fois la ne si c'est abusé l'ol yow ya dem ba gisal ko sa gisal ko sa bop même pas d'égalité je ne veux pas donner à l'autre et laisser l'autre en rade maintenant ce qu'on va faire moi je vais prendre tout il a pris tout il est imam en même temps chef de village voilà. Hmm. ci armeel bobu nak ay kéemaane tamit bari nafa parce que fofu ci armeel bobu non qui ay kilifa yoo xamante loolu tamit du ñëpp ko xam amna ay yam. des abeilles bu fekkente ni dara nara na dal ci dëkk bi loolu bu ñu génnee persister ci biti maanaam dugguñu nit ñi ñoo xamante ni ñoom moomu ay borom xam-xam lañ dañ daal di xam ni am na loo xamante ne dina daal dina daal di am ci dëkk bi te du neex alors secret yi bëri na dëkk bi kéemaane na mënuñu ko wax lépp parce que mën nga wax fi nga ba fàtte fee daa nag période bi bu jotee comme de euh, février mars avril mai période où on récolte du noir d'acajou alors de façon très ramassée très brève l'histoire connectée de Pakao Mankonomba avec ses 4000 habitants, nous à l'intérieur sans compter ceux qui sont à l'extérieur parce que nous, bëri ñu nous compter nous ñoo ils sont là ak surtout sur les fichiers mais ñu bëri tamit dañu daal di nekk de l'autre côté mais bu xew amee comme démb li ñu ko gisee fii nii daanaka bu ñu demee bu ñu ne boutique yëpp manqué nañu ndox lépp daanaka manqué na ba ñëpp di rabattre loo xamante ni moom moo di au niveau des puits cela veut dire que la concentration la densité elle est de la de mise ici foo xamante ni moom moo di Pakao silola iye kamben kabo dum munya bolodi